Euh, dafa am aussi ñoo xamante ni dañu mel dañuy seetaan euh, bu ñuy jël presse bi dafa mel ni sax euh, dañuy yàkkamti nakar wala loo xamante ni mun nañ ko reprocher Walfadjri ba ñu mettre que à la une nan ngay dundee yooyu yooyu yooyu mbir est-ce que souvent doo am ay déception ci ñi nga xamante ni ñooy yenn yenn yenn acteurs de la presse yi waaw déception mun na am wante nag je pense que soo ko comparé ak élan de solidarité bi sénégalais yi wane vraiment Walfadjri tey soo xoolee suñuy émission ça dépasse les cinq mille six mille vues si live mm-hmm. nga xamante ne loolu exploit na à cette heure mm-hmm. donc euh, loolu yëpp ça te montre que tey Walfadjri est devenu benn mass média benn leader si domaine am mm-hmm. donc euh, c'est vrai que euh, acteur de la presse ku si nekk tamit am nga ay intéret ku si nekk tamit am nga benn choix boo boo def ñun suñu choix tey mooy euh, le train qui n'arrive pas à l'heure mhm. non seulement deen joxe xibaar bi te tamit deen euh, étudier xool lan moo tax il n'est pas arrivé à l'heure mhm. Pape Makhtar analyser kii joxe chronique ñu gëstu wax lépp euh, gindi sénégalais yi mhm. xëy na yeneen médias yi mun nañ bañ def seen choix mais ku si nekk tamit tu assumes tes choix et je pense que sénégalais yi tamit xam nañ saa yu nu soxlee en tout cas information. xam nañ fu ñu koy jëlee te xam nañ ne que c'est Walfadjri. Mhm. donc côté information tey muy ay élection lépp da ngay gis ne que Walfadjri domine mais très largement. si euh, système médiatique bi. Mhm. waaw su fekkee côté divertissement wala yeneen yeneen kii nga xamante ne c'est beaucoup plus euh, euh, léger xëy na foofu noonu am nañ si tuuti retard mais côté information côté côté côté côté sérieux foofu noonu vraiment je pense que sénégalais yi ñoo ñu bàyyi xel bu baax a baax. donc loolu la acteur de la presse yi tey xëy na wane wuñu solidarité mais ñun de toute façon li nu mun mooy yore neen benn média qui est puissant. wax wax ak sénégalais yi directement et puis euh, du nu teree tamit def ay action parce que euh, yëf yi tamit mënoo toog di seetaan rek ñu lay ñu lay ñu lay teg ay euh, ay ay ay métit Mhm, mhm, mhm. yaa ngi koy wax léegi euh, est-ce que kon njortoo ni que Walfadjri dafa nekk di payer li nga xamante mooy succès euh, bi mu am euh, surtout nag ci Ramadan bi bu ñu ko doon comparer ci ay chiffres parce que aussi YouTube bi moom baromètre bu fiable la. mën nañ ko comparer xool kan nañuy seetaanaat ku ñu dul seetaan ak kan moo kan moo ëppale ma tey est-ce que nekkul Walfadjri nekkul di payer loolu succès bi nga xamante ni am na ko te sénégalais yi jox ko ko. waaw bien sûr xam nga bi ma ñëwee début bi. dama li ma doon li ma waxoon mooy que vraiment i faut balaa ñuy dem euh, di communiquer wala balaa ñuy dem si partenaires yi sax i fallait vraiment ñu gën a améliorer suñu contenu parce que comment dire rek lekket kese naxul bay donc i fallait vraiment def tout un travail. Mhm. Euh, foofu la ñu innee keppaar gi penco. Mhm. yeneen émission yi nga xamante ne à chaque fois sénégalais yi dañ koy accueillir avec enthousiasme. Mhm. donc euh, effectivement aujourd'hui tey xëy na lu ñuy subir yëpp depuis. Euh, ces derniers mois là xëy na lim nuy wan mooy que euh, tey nii sénégalais yi gën nu bàyyi xel. amoon na ay jamono xëy na yëf fi gënoon na métti mais aujourd'hui tey ce qui est sûr et certain su fekkoon tey audience donc tey le partenaire yi soxla. Mhm. Euh, du ñu am benn problème mu xaalis parce que tey YouTube gëwuma ma nekk tey am na beneen euh, groupe de presse. ki a plus que li ñuy am si en terme d' audience et en terme de revenu parce que am na benn site bu tudd mhm. Social Blade nga xam ne day comparer sax site yëpp mhm. soo defee comparaison soo xoolee euh, à part xëy na ay société de production tey Walfadjri en tout cas suñuy concurrent direct si télé yi Walf est premier mais de manière large et nette mhm. donc euh, aujourd'hui euh, sénégalais yi le succès de yi moom kenn du ko naatable mhm. am na réalité la mhm. surtout que tey ñoo ngi dem si ay échéances ay élections nga xamante ne xëy na état li mu jàpp mooy Euh, soit tu avec moi soit tu es contre moi. Mhm. ñun nag mhm. euh, jëluñu benn ci ñaari choix yooyu noonu choix bi ñu jël mooy nekk ci digg bi nekk un contre pouvoir un contre pouvoir nag ne veut pas dire nécessairement contre le pouvoir comme disait Sidy Lamine Niass. Mhm. donc euh, aujourd'hui xëy na échéance yu ñu dem jàpp nañ ne que. Euh, groupe de presque mel ni Walfadjri xëy na mu bañ a exister mooy gën parce que tey muy Pape Ndiaye muy coro Diouf. loolu yëpp pour man c' est l'arbre qui cache la forêt mhm. maanaam li ñu bëgg attaque dëgg dëgg dëgg mooy Walfadjri c' est pas du Cheikh Niass moo leen intéressé wala Moustapha Diop wala keneen mhm. c' est Walfadjri ak li muy représenté si euh, askanu Sénégal mhm, bu bu bu yàgg di demee nii nga defee ni doo jot ay lettre de démission commencé par man <laughs> xam nga actuellement ah euh, actuellement Walfadjri daal je pense que ñun ñëpp euh, mission lañ ko def sacerdoce su fekkoon xaalis la wala leneen wala je sais pas doon bëgg noflaay man personnellement euh, doon naa toog euh, France euh, continuer sama liggéey amoon naa ay conditions yu baax mais depuis ma ñëwee France Sénégal mhm. yëf yi dafa métti donc vraiment subir neen ay jafe-jafe yu ne et jamono yi sax dëpp bi ñu coupé suñu signal yi fii gën na métti mais li ma gëm mooy tey Sidy Lamine Niass daf ñu jox benn mission. Mhm. bi ma ñëwee tamit loolu laa waxoon ne yëf yi continuité la de rupture. Mhm. donc euh, góobu ma nekk dina am démission li ma gëm au contraire sax. Mhm. mooy ñi fi nekk ñëpp. Euh, ay soldats te ay soldats wu askanu Sénégal la. donc li ñu bëgg tey mooy en tout cas gindi sénégalais yi wax leen li am. on n'est pas pour manipuler. on n'est pas là pour euh, pour euh, pour pour yee fitna pour que sénégalais yi dëkk bi kii parce que dëkk bi tey su jaxasoo yi tamit. Euh, ñun ñoo koy ñëkk subir. mais bien donc li ñu bëgg au contraire mooy jàmm am tey sénégalais yi su fekkee doon bëgg alternance wala su fekkee doon bëgg troisième mandat wala lu lépp lu ñu bëgg daal. Mhm. ñun en tout cas ñun ñu accompagner leen parce que encore une fois Sidy Lamine Niasse li mu doon wax moom day gunge. Mhm. donc ki nga xamante ne sénégalais yi moom la bëgg dinañ ko gunge ba. Euh, place am ñu daal di dellu nekk suñu contre pouvoir suñu place. voilà donc ku nekk rôle am. Mhm. Euh, su ko defee je pense que problème du am. mais aujourd'hui le vrai problème la liberté d'expression bi nga xamante ne tey ñun ñooy le porte-étendard xëy na mooy poser problème la liberté d'expression nag man je considère que. c'est une liberté fondamentale. Mhm. presque sax absolue. Mhm. jàpp ne que ñaar yëf donc moo moo ko limiter. mooy xëy na euh, mbirum waaso wala mbirum diine nga xamante ñaar yooyu tey soo si duggee rek euh, mun na indi ay jafe-jafe. parce que mm-hmm. kenn kenn xeebul sa bopp ah tey soo ñëwee bëgg jiite sa sa xeet wala kii c'est sûr et que dina dina indi ay trouble euh, si si public bi. Mm-hmm. deuxièmement aussi côté gëm-gëm. ku si nekk tamit nga bàyyi ko si li mu gëm lëkkum diinu ko waliya diin mm-hmm. lëkkum waasoo ko waliya <laughs> waaso donc jàmm ne ñooy mais lu mooy ñaar yooyu noonu man li ma gëm mooy on peut dire tout on peut critiquer euh, le président de la République soo demee France le délit d'offense à chef de l'État existeetul tey soo tapee YouTube benn euh, gifle président de la République de la woon ay image soo tapee insulte président de la République di nga gis euh, Jacques Chirac saaga nañ ko Hollande saaga nañ ko Sarkozy saaga nañ ko ainsi de suite soo bindee nen ak président de la République di nga gis ñu sànni leen nen ñoom ñëpp donc pour vous dire que foofu noonu tey euh, egg nañ benn degré de maturité. moom Macky Sall sax dañ ko sottee fan. voilà que ñun amuñu ko. Mhm. exactement ñun ñii tey nii doon jàpp ne que le président excellence le euh, magistrat yi kenn du leen outrage xoolal tey euh, kaaw Bassirou Diomaye Faye bon li mu bind man mun naa ko bind je veux dire c' est une oeuvre intellectuelle li mu def pour man y' a aucun problème. Mhm. mais aujourd'hui liberté d' expression tey mooy poser problème. d' accord et man je considère que le vrai problème aujourd'hui c'est Walfadjri. c'est Walfadjri qui pose problème parce que Walfadjri tey du Cheikh Niass moo ko fi indi du man maa xalaat lii mais Sidy Lamine Niass moo ko concevoir ak euh, ñi mu àndaloon. Mhm. au début et aujourd'hui tey ñu téye euh, étendard boobu noonu mais li am solo mooy ñun on va continuer jusqu'au bout parce que. askanu Sénégal soxla nañ ko tey soo xoolee rek audience yi ñuy am. Mhm. ça montre que sénégalais ñoo ngi bàyyi xel bu baax a baax. d'accord dernière question ñu def euh, tour de table euh, Cheikh mhm. dañ koy wax aussi souvent ñu ni Walfadjri dafay liggéeyal Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu nekkee président lan la daf leen di jox ay intérêt yu a dig jamono ji c'est quoi en fait pourquoi kàddu yi di ko di ko di ko di ko wax euh, di jël euh, Walfadjri bëgg ko def moomeelu Pastef waaw xam nga fii Sénégal daal euh, loo def rek ñu ñu wax mhm. mais le plus important yow nekkal ci sa ligne nekkal ci sa principe mhm. amoon na ay jamono doon nañu ko wax sax ci Macky Sall wala yeneen opposants yi mhm. donc ce qui est sûr et mooy que tey ñun on est la voix de sans voix et opposition bi tey xëy na ñoom ñoo gën a yelloo tey sans voix boobu noonu. Hmm. san pape tey jamonoy euh, Macky opposant bi mu nekkee si àll bi di euh, soxla média. Hmm. ñun on était là-bas. Hmm. parce que tey service public bi fii maleureusement euh, du du ñu couvrir activités yi opposant contrairement service public France. France de da ngay gis wàllum grève tout ça il le montre. wane image donc aujourd'hui ñun la voix de sans voix boobu képp ku nekk sans voix on va te couvrir. faraluñu kenn nag. mais su fekkee ne sénégalais yi euh, Ousmane Sonko la bëgg dañ ko gunge ba euh, fi mu war a egg. Mhm. su fekkee keneen la ñu bëgg muy Abdourahmane Diouf muy Bougane muy keneen la même chose. Mhm. donc ñun notre rôle c'est d'accompagner. bëgg-bëgg askanu Sénégal. Mhm. loolu moo ñu intéressé mais ñun encore une fois on on compte pas nekk benn RTS bis. Mhm. ëllëg su euh, Sonko nekk président wala leneen non non place bi ñu nekk ñun jàpp nañ ne que sénégalais soxla nañ ko. Mhm. soxla nañ tey ñu critiquer leen ñu critiquer euh, système bi fi nekk. et je pense que ñoom tamit soxla nañ ko. Mhm. donc état bi tey au contraire dafa a bàyyi xel Walfadjri xool jafe-jafe yi ñu mun ko saafara ba nga xamante ne tey bis bu nu demee nag ba ñu saafara tous les problèmes de Walf. Euh, de de la société. Mhm. boobaa nag Walf dootul amati existence. c'est clair d'accord d'accord. Euh,